لا سناي وردوان بلا سقط مثقل لي من بني ديمان انصارا لا سناي وردوان بلا سقط مثقل لي من بني ديمان انصارا acca bul bàyyi na réer ndigal la sanaayu wa ridwaanin bilaa suqatin musqadali min bani daymaan ansaara acca bul bàyyi na réer ndigal la sanaayu wa ridwaanin bilaa suqatin musqadali ni day maanaan saara ndigal la sanaayu wa ridwaanin bilaa suqatin min bani bis tay bi mooy bis bi ma gën a neex sama àdduna ndax man Mbacke bi may jébalu si yow damaa ñëw ne la Mbacke jox naa la sama bopp nga laaj ma ba xam maa ngi ak sama papa man la waaw nga ne ma ba xam maa ngi ak sama waajuru jigéen man la yàlla moom na ko nga ne ma ba xam am nga ndigalam ma ne la sama papa ma ak moom xaritoo nañ xaritoo goo xam ni su ma demee ne ko am naa sëriñ ñu ngi koy woowee sëriñ Abdou Aziz aboo dina kontaan Mbacke kontaan naa te bi ma fay ñëw dama àndoon samay moroom ñi ma àndaloon comme que ñoom laa mën a yéene jàmm ba bëgg ñu raw ba ma indi la ci ñoom gën ñi ma bokkal taxaw ñii bis bi li tax mu neex ma sama baay bi daf maa gën a lépp ba pare taxaw sama mbokk yi nga xamante ne aw ma lu dul ñoom samay bàjj na ngi nii ñu taxaw Mbàkke ma yaakaar la nag fii ak fa jëm sama njëbal gi ma njëbal si yow dama koy yëg sama xol wallaahi azim nga ñaanalal ma benn soxla laa am benn soxla yàlla jubóole samay mbokk yàlla bàyyi ma ak sama maam ba ma defal ko lu bëgg a a defal Mbacke. laa bëgg. Eh, waaw moom maa ma mooy sa yaay. Hmm? mooy sama yaay. sa yaay dafa doon fonk. maam dafa neex man de sama maam sama xarit loolu. Ah, waaw waaw man moom laa tudd sama kër gi sax maam ma de maam. maam jàmbaare. Euh, mooy sama bos may. Eh, ndeysaan mooy Coro Diagne mooy aada yu aada yu neex la. Ah, waaw waaw léegi ñu naan nit xanaa sa maamale ya <laughs> te maam Daawud yàq dañ ko kon waxtu wi day bëgg a jot. te te te te bu ñu waxee lu rafet. Mm-hmm. ci lislaam mu nga dellu leen ko di sunna di farat. ton di wax leen asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mooy ki nga xam ni newu fi di ndeyam jii mu tuddee doomam jooju. laa ilaaha illallah. ndeyam jooju bi ma koy jël day jàng kon xàmmee na million ak cent franc te may yëngu ci loolu yàlla it nag doon ko yokk te du ma nëbbatu muy gis ay këyit yoo xam ne ay million lañ ciy def. musuma ni may ma ñaari junni musulam laa musuma wax ne ma damaa soxla dix mille francs sànq suba dama koy nettali fee ci waxtaan ne dama daan def su ma dee war a tukki ci ab liggéey jàpp ni dinaa def ñaari semaine comme que euh, man lu ma am sama ndey bugguma mu soxla dara sama ginnaaw ñu di ko fayal damay jàpp ni kon moom moom it nag loolu war na ko ci diggante mag ndeyam ak i mbokkam ba nga xam ni kon du ma booba téléphone amul ay yii ñuy whatsapp ak yi def yenn ay détails yooyu ay wareek yooyu existé wul waaw kon dama daan ubbi sama euh, fi may denc jël caabi ji def fa million mbaa huit cent mille jël caabi ji jox ko du bokk ak depanse bi ñuy joxe ci kër gi ne ko lu fi doon soxla muy sa bos muy keneen te bokk ci kër gi ubbil fii nga jël ko réglé loolu li ma ko def nag mënuma ko wàññi waaye amul benn yoon bu ma tukki ñëw fekk 1000 francs jóge na foofu naa fa def nag fukki at ak naa fa def fukki fa dégal fukki jour fan ak juróom ñaari semaine ndax moo doon ëpp mais 1000 francs du génn foofu su ma ñëwee ko xanaa soxlaa mu fi mu ne ah li fi war a doon soxla de mooy xëy na li ñuy lekk li ñuy naan loolu joxe nga ko ber ko ber na le waaw kon kooku ah dana baax nag ñu di ko wax ndax xam naa ni di nga fekk téeméeri jigéen ñu toog loolu bu ko seen jëkkër defee bu ñëwee boo saagu ñu dégg leen ci lu wér yàlla nag moom moo moo ma baaxee woon loolu saa yu may mee ñi mu meññ dinaa baamtu loolu ca ka ma koy may ndax ku ñëw ne ma sama jabar moo sàcc sama nangam ku mu jur dinaa ni waxoo dëgg waaw man ku ñëw wax loolu rek dinaa li waxoo dëgg xëy na nag àdduna mën naa dox ba nit mel neneen kon nag Mbacke euh, moom mii euh, comme loolu ma wax léegi rek yàgg na boo waxee daanam benn doomu aadama rek laa ragal mu yow te man mosuma koo dóor ndax kenn du jur sa jël sa baay di ko dóor te sama baay laa ko tuddee sama baay damaa tuddee baayam defal ma teraanga ma tuddee ko sama baay defal ko teraanga waaw loolu nag lu ma fonk la waaw di ko jàpp moom nag comme lii ñu waxtaan rek bu soobee yàlla lii c'est la première fois mu daal di may wax ne ma lu mel nii jataay bu mel nii waaw loolu alhamdulilah rabbil alamin ñu nuyuwaat leen ni ngeen ko xamee seen xarit seen mbër Alaaji Mbay Dogo mooy tudd tey mais xam naa nag ah, nopp na jabar ji ndax dan ne ko dañuy ñibbi mu ne kon dem leen fekk ko salon ba jël ko ndax kooku faaw ngeen jël ko Séri booy jaara euh, nuyu naa la. maa lay fay. yàlla dogal nga am tuut tànk muy bisu mbégte di bisu bànneex koo eh, kër ga waaye ma nga fees del mbokk yi xarit yi ñëpp teew looy dégtal mbokku internet yi. xanaa di sant yàlla rek di nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne tam su ma limee damay juum di ñaanal yàlla sama borom kër di ko ñaanal yàlla aw ma fayam daal su may wax si moom damay jooy waaw damay ñaan yàlla rek suñu sëy bi nekk benn sëy mu dund ba lu mu daj ci doomam bi ma koy fay. ku sonn mën a sonn si njaboot la daal waa mënu wax si moom damay jooy. jël nañ ko sànq benn mu wax ci yow témoigné lu doy waar sa diggante ak alaaji. ah nekk ay xarit rek maa moom duñu ay jëkkër ak ay xarit lañ ndax daa nekk koo xamante ne xooloo ma butu jabar xooloo ma butu dara ma def comme ku mu bokkal ndey ak baay du dugg lu ma yëgul du def lu ma yëgul du wax loo xam yëgu ma ko def ma comme koo xamante ne mooy loolu alaaj mënu ma wax si moom dama koy bàyyi yàlla rek. dama koy bàyyi ak yàlla di ko ñaanal yàlla rek. yàlla may leen tuut tànk mu tudd doom ji yaayam. waaw ma koy ñaanal fa mu nekk yàlla na ko gënal fu mu jógee parce que tey bu doon suñu sago mu fekkee li ndax alaaji mënul tëdd te waxul turu yaayam lii la doon ñaan yàlla ñu ñaan yàlla yàlla na ko muurloo ñu dund ba koy muur muy sëy si bàyyi Seydina Mouhamed loolu laa koy ñaanal. yaayam fekkewul mais sa góor bu góor gis nañ témoignage yi mu la def. waaw kooku moom kenn la sama xarit la la parce que fi mu teg doomam mi amaana fu ko raw la ma teg koy ñaanal yàlla bàyyi ko fi ba fekkee lépp ci bàyyi seen naam xamal. nga xew xarit yaa ngi nii teew sa doomu ndey sa am di jàmm yi ñëpp ñëw teew loolu nu mu la def. am kontaan rek parce que nit moom nga xewle gis say mboq tamit lu doy la dafa rafet daal may ñaan yàlla ñoom ñëpp ku ci nekk yàlla na la yàlla fay li nga daj ci man ak niñ ci sonne yëpp gis naa lépp gërëm ñëpp su ma limee damay juum maa ngi sant ñëpp. wax dëgg yàlla kontaan naa trop gis naa taxawaay. Mhm. li nga sañ sa décortiquer <laughs> def garaam bu rek te bàyyi ko bu daanu rek ñu xëyee ko nuyoo ko gars yi lu mënul ñàkk la faw ma am. nu mu nar a demee. ah nañ dem rek loo gis la xamal loolu la. <laughs> kon ñu jox gars yi dig daje. ba boor incha allah waaw. yi leen ziar leen dellusiwaat nañu suñu tudd comme ni koy defee rek. suñu xarit bu am tudd ku ngeen xam ak ku ngeen xamul mbokk yi alaaji mbay tey la ñu seet si yàlla may ko leer di tuut tànk muy tudd doomam tuddee ko way wu jigéen ñu koy ñaanal yàlla na dund ba mu koy muur muy sëy alaaji tey yàlla may la tuut tànk may la taw feex ndax taw feex la ndax doom du ku nekk la ko yàllay jox suñ borom jox la ko nga koy defal bisub tudd gis nga ko mbokk yi xarit yi am di jàmm yi ñëpp teew looy wax internet yi lay seetaan waaw sama xarit bi maa ngi lay siyaar euh, di la delloo njukkal di kontaan bu baax si bis bi di baaloo ak ñëpp parce que man moom ma nit ñi ba suma xewlee ñu ñëw maa leen di jégalu di sant sama sëriñ léegi la fi jógee muy sëriñ Aïs Abo di ko sant bu baax di sant sama waajur bu baax xam nga di leen sant yéen ñëpp di kontaan si yéen lii nag dafa doon bis boo xamante ne man dama ciy sant sëriñ Touba ndax sama yaay dama koo gëj a gis oh. bu ma leen dama koo gëj gis mooy bi ma amee fukki at la gaañu oh. ma am doom tuddee ko ko tey mu doon bis boo xamante ne bis bu ma neex la ma koy sant di sant ñëpp di sant képp ku fi teew di sant Bour Gueweul mi nga xamante ni du ma taxam lu ci dara lu ma xewle mu ñëw waaw li gën a rëy ci samay émission li gën a rëy ci li ma taal mooy dinaa la col col dinaa la ñol ñol te moom moo ma ko interview kon loolu kon loolu ma ci sant sant ñëpp di sant sama ñoom maam di sant ñëpp di gërëm ñëpp. sa diggante ak sa waajur wu góor ndax gis nañ témoignage yi mu def léegi ci sa kanamu sëriñ. waaw sama papa sama xarit la sama papa sama xarit la euh, sama papa sama xarit la sax boo koy wax te li nga bëgg a def yëpp dafa goo ko mën nañ koo xaw a gëm ndax dañ naan àdduna ku ku amagul dangay baax. ku amagul li ngay digge day bari waaye li ma namu samay waajur man yàlla rek laa ko seeree waaw yàlla ñu fi yàlla bàyyi ndax sama papa dafa maa defal lépp lu bàyyi di defal doom dama damaa judd fi ma war a juddoo mu defal ma teraanga bu ne di ma jàngal di ma yóbbu école di ma dugal si oto waa xam nga ma koy sant bu baax mu nekk sama complice tuddee ma papaam moom papaam tuddee ko papaam moom mu tuddee ma papaam kon looloo tax oh, mu nekk sama xarit loolu la. kaddu yi seede yi mu yëkkati jëmale ko ci sa wayjuru jigéen na xam bi mu fi bàyyeekoo xale la xale nga yow mais loolu nan la la def. waaw loolu lenn léeg la ma def. Ah. mooy alhamdulilah laay wax. parce que gis nañ fi ba tàyyi euh, baay xarab yaay. gis nañ fi ba taay yaay xarab baay. kon du sunu jàmbaar waaye bu ñu amee sensu sunu papa gërëm suñu yaay xam nga loolu sens la ah, dañuy ñaan yàlla suñu borom rek. sama yaay fu mu nekk yàlla xaare ko àjjana man yow sa waay xaw ma sax lu muy demee nii man xaw ma sax lu tax samay mbir di demee nii man parfait ma maanaam baaxuma torop mais wóor wóor na ma ni bonu mais su may jubee dara di ci di ko sumb nit ñi dañ ma ciy jàppale ba du ma xamante sax lan la waaw di gërëm sama xarit Ismaïla Traoré précise di gërëm sama xarit Modou Gueye héritage barki Serigne Bamba fukki ñaw la ma defal. di gërëm sama xarit di gërëm sama xarit maam Thierno mbokkum day soq di gërëm sama xarit gauche di gërëm sama xarit Xaarim Diagne mu Seex Seex Saad bu nag la ma jox boole ko xaalis bu bari di gërëm Waly Seck. Waly Seck waaw bu ko jotam mayee dina ñëw xam naa ci kanam bu ko jotam mayul tamit jéggal naa ko parce que xam naa ne fi niveau bi toll la. ak yitte waaye li war ci xew mi yëpp defal na ma ko jox na ma xaalis jox na ma ay piis li ci gën a neex mooy joxaale na ma numéro bu bees bi xam nga loolu dafa neex waaw maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. kon léegi yaa ngi koy mën di déggaat. waaw sànq rek déggante nañ mu a ma mbay mbasu yow loo def baax na yow del bëgg rek may def waaw di gërëm ñi nga xamante ni ñooy samay xarit di gërëm soq. lu ma nekk mooy ci Ama Baldé nekk fu mu nga ba Paris waaye xelam mu ngi fii. Euh, di sant ñëpp di gërëm ñëpp kontaan. dégg nañu. kontaan naa sama xarit bi. jël nuyoo bi teg ko teg ko ci loxo waajuram bu tedd bi ci waxtu rafet ji mu rafet mu tasaareel ma ko ci ay mbokkam yëpp ay yaayam ak bàjjenam maamam ak doomi bàjjen ak askan wépp ndax noonu yàlla bindee àdduna dinaa jaaxal naa ko soxoban waxaabaa yi la di taxaarafu teg ci yaru ne ku ko dagg naal dagg kon mbokk dafa foor maa ngi koy dee ba léegi ne ko bi may sekk alaaji yàlla dogal na muy socc man lu bari waaye mosuma ñëw ci mbokkam te bi may ñëwit moom xam na ne dama ko jaayante sëñ bi fekk ma ci waaye amoon naa ngànt ndax bërkaat dem ba tey ñu ci xew fanaan daaru salaam kajoor naa ngi joon tura sëñ démb naa ko defe naa damay bàyyi ba tii rek ma ñëw waaye mm, nit dafa amul lu dul gisam ma jaayante ko rek ñëw ndokkale ko ne kon <clears throat> heure tudd ma mu fekkoon ma fi waaye li ma fekkee doy na ma sëkk dal na sama xel li ma doon xaw tiit di ko ragal jamono ji mooy loolu yi ma ko wax bi muy jébbul ndax taalibe yi duñ am koom ay nawale lañ yooyu àndal ngir ñu dem ànd jaamu yàlla tegu ci yoon wi sëñ Tuubaa teg ndax ñu taxaat na taxaat la waaye léeg-léeg nga dem ci kenn fekk ay waajuram dëgguñ ci moom boo ci mënul dara sa xol du neex ndax sëriñ Baara Mbàkke sama sëriñ dañ koo laaj ne ko ndax wàll yu mën naa faj aajo yi ku am àq waajuram mu ne yàlla kay mën na lu ne gisee wàll yi bu ko ñaan li ajo mën naa faj waaye yàlla daa xerañ xerañ joo xam ne mën na koo fexe ba du ma sa nuyu wàll ci ak dunub gépp mu ne àq waajur dafa foor sëñ Tuubaa mi gën ñëpp sax tax ñu jébbalu ci man laa wax de moom sëriñ jàmbur yi ñun suñu sëriñ ku ne sama sëriñ ma gënal wala soxna sama soxna laa gën nopp ne sañ na ko sëñ Tuubaa mi gën ñëpp ci ñun murit daan def ñu ku ñëw jébbalu mën la ndax say waajur juboo ngeen ci boo nee déet ma ne demal tàggu leen sëñ bi laa nett na mu ne waaye nag néew nag ku mos na demal tàggu say waajur nga tàggu say waajur ñu teewaan la ndax ku jàkkaarloog moom ba gis ko boo gisee say waajur leer ga ngay àndal boo mutu nga ànd ak sa waajur ñëw kon nag daf alaaj dama koy sant bu baax ndax gone yi léegi ñàkk kilifa day jàngoro jigéen ñi ñàkk sëy di problème kon bu ma ñëwee fekk ay waajuram gërëm ko seeral ko seere si seeral ko ci ay waajuram kon dañuy sant yàlla ndax yóbbu ñu baax ñeeg ñu bon ñi damay wax ne fenn rek lañ mën a daje fenn rek la ñu daje hmm? noppi neexu ñu baax ñu njubal ni teraanga saay saay bëgg na ko ko teral doon na saay saay ku baax bëgg na ko ko teral <laughs> teraanga rek luñu waaye nabul teraanga duñ ko mën a bokk nag da duñ ko mën a bokk ñoom ñaar ndax ñeeni waaye sa nit daa bon kenn bëgg mu ñëwoon fekk alaaji ay mbokkam xeeb ko baayam jépp ko yaayam meru ko da tax ma ba ko nag waaye naaj sóombaatub liggéey ak moom ba xam ila macha allah ndax jaaxal suñu bopp tax nag moo tax jox sëñ bi suñu bopp kon nag kenn sëñ sànni kenn bi may ñëw bu bu ma tàggoo woon dem leen ñu ne ma jaru ko ay ñi marché ba ci yoonu laa leen wax ndax dama jaayante ne lu ma fekk rek moo ma gën a ndax sunna lañ ma woo diine lañ ma woo lu baax lañ ma woo tey ñëw gi ñu ñëw ci man sama tànk xeebu ma ko kon ma naa ñëw ba ci këram ndokkal ko waaye nag yàlla dafa la tawféex sëñ bi ma fekk lu ma neex ndax lii waajuram seede ak bokkam yii wax dëgg yàlla ku sañoon nag sa nit ka gën comme damay tudd damay tudd ñu bokk yaakaar sëñ bi moo sañoon nag day gën a baax gën a baax te fekk naa fi am yaakaar nag di sant waajuram yi judduwul rek baax daa fekk ci yoon bu baax nga ko ciy teete ba mu gëm ne lii mooy baax loolu nga seere ci waajur mu jigéen nit wallaay ñett fan yi rekk ñu ngi ci waxtaan ba biig am na ciy waxtaan mu ne sëñ mu ne ko fa mu ne mu ne ki ki defe ne boroom kër gi damaa jiitu ci moom boole ma moom ndax dañ doon waxtaan mooy tudd sikki jigéen yi waaye li nga wax yaay lu garaaw a garaaw la seen jigéen ñi dañ koy dégg jigéen ñi ba ñuy jéggul yonte bi xam nga alayhi salaatu wasalaam moom lañu yàlla royloo sëñ Touba moom xaayit la dañ koy topp roy ak topp bokkut ko roy sëñ Touba bëgg roy sëñ lépp mën nañ ko bu dee mu say suñu yoon néew la roy laa wax de yonte bi lañ jàppul def yàlla def loolu laqad kaana lakum fii hasana moo tax kër ma amutoon vie privée lépp da dañ xew niñ mën koo roy sëñ Touba nag boo ko doon roy kër jigéen ñaa kër gi xam nga fa dafa xaw te Moustapha jabar di fay Moustapha jabar di mer Moustapha Diop dafa yonte yooyu yëpp xaw na këram pour nit ñi mën cee jàng. ñi ci ngénteel Alaaji Mbay Dogo gaay yi bu ngeen leen gisee nii xam ne ñoom ñoo xewle ah ngi nii gaa yaa ngi nii ndaanaan yëpp ngi nii tey seen seen xarit seen seen doomu nday seen seen lépp Alaaji Mbay Dogo soq tey yéenay ngénte yaaram waaw tey ñooy ngénte de waaw suñu doomu nday ndey xewle suñu xarit suñu lép waaw tey moom ku ne xam na ni moom ñoo aaye moom. waaw waaw waaw loolu la yàlla dogal. ah mais tudd fan la am. non garaawul yëfi mbër la rek. mbër yi mooy la nii di doog a ñëw. moom lañ doon xaar. comprendre nga. waaw ñu ngi koy ñaanal tawféex rek. waaw ah, di ñaanal xale bi nekk xam nga. gone ak lislaam xam nga. dem ba am borom kër am ci ay njaboot. ñu ngi koy ñaanal ci barki yonent bi ndax suñu doom la. alaaj mbay suñu xarit la. suñu lépp la. tey bu xewlee ñun nii rek lañ mën a def ñëw sol suñuy kilo takk suñuy plastique jàpp ci bagage yi xam nga ñëwuñu fi pour dara dañ fi ñëw ngir suñu bisu bopp waa loolu la rek. foo ne. waa ñuy fii rek ñu ngi nii toog rek. lu gaa wax. ak sama père. xam nga yaa ma gën a xam gars yi daal ñu nii. lu gaa ñoom ñii. ñoo yor lépp. lu ñu wax loolu la ba tey mi ngi bëgg a yàgg. mu ngi bëgg a yàgg kay. lan man bokk naa ci xale yi daan njëkk a bëre. mais xëy na mbëri daa am luñ def seen bopp rek am lu ñu gis rek. mais li moo gën a piir de. lu ñu gis ñoo ko xam dama am ci lu ma jugee rek ñoom ñëpp ku ci nekk di xool fu muy teg ci tànkam ndax xam nañ ni Sokh pareetur pour wane ci benn ñàkk fayda ci làmb loolu moom muy léegi muy ci kanam ak ci kanam ak kanam ci bokk yam làmb pareetuma pour wane ci benn ñàkk fayda. waaw léegi heure bu ma ñëwee fulaak fayda laay def bu dee fulaak fayda jooju lañ gis moo tax ku ne di moytu day gën a pire barke maam Seera Fall. ku war a ñëw. non ku ñëw baax na maa ngi déglu sama père sama gars yi maa leen di déglu rek. lu ñu wax kon lay doxal. ñu ngi wax maak mbër yëpp mbër yi ngay dégg nii yëpp ñu ngi wax maak ñoom ku ci disponible rek man soog pare naa pour bëri. tardé ci yow. non non ku bëgg a bëri avance dina tardé ci moom man xale la waaw xale du calculer damay dégg ñu naan xale lii risque la lii risque la xale du jël risque. li Tapha Mbeur wax dëgg la xale du jël risque barki maam Serapha lu ñëw rek da nga ko war a jël. jëflante mu jeex nga xooli leneen. dégg fële yaa ngi waaye parcelle bi. waaw amul problème bu neexee gars yi rek neex na ma amul problème. Ah, non waay ban diis ñun ñu yaay xale comme ñoom. Ah. ñu am kattan ñu am kattan ñu def ci làmb luñ ci deful ñuy diis si ñun kon nañ bàyyi man damaa bëgg a bëre ak yi si kaw bu ñuy diisee ci man kon jox soxlaatul may bëre waaw. mooy loolu ah. jaajëf yaaram ci ñi ngi ci ngénte li lan yow sama sama mbër yi da ñëw ci ñoom ñu lay dóor te xamul ne tollul ñu ñoom waa ji kurpañ la ma dóor dóoruma yow suñu lépp nga moo tax da ngaa baax moo tax ñuy kaf ak yow quoi wax dëgg yàlla yow moom jàmm rek nga am quoi wax dëgg yàlla seen waay mooy ngénte seen doomu nday alaaji mbay hmm? ñun démb ba léegi ñu ngi fi xam nga instant bi ñun Pikine ñun jeunes lutteurs yi quoi ñu def suñu 100 pour cent Pikine léegi bu ñu defee 100 pour cent Pikine démb ba léegi nii sook mooy capitaine bi te moo topp ci président bi moom buñ buñ wootee rek ñun ñëpp dañuy ñëw gisoo sol ñu sax yére nii la ñuy def rek ñëw jàpp ci affaire beeg yooyu Talaaj Mbay dafa nekk nit ku baax Pikine benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar xoolal tey ji ñun nu ñu wàccee suñu bopp mu mënti yëpp ñii lii lañ bëgg lii lañ soxla ci Pikine ñu bokk ndey ak baay ñëpp ñëw jàpp si mais ñi ngi ñaanal ñëpp jàmm quoi wax dëgg yàlla oui di leen ñaanal yow tamit jàmm quoi